الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صوت الإسلام برنامج ديني تقدمه الأئمة والعلماء بالسنغال وفي الميكروفون الإمام عثمان سار وفي تدريس الإمام الهجي بنجاي والإمام الهجي هارونكا الإخوة والأخوات المساعدون asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu imaam asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh imaam asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh bokk yi jàkkaloo ñun ñoo ngi leen di nuyu di leen ndokkeel di leen ñaanal jàmm di ñaan subhanahu wa taala mi nga xam ne moom moom jàmm te ku mu jàmmal nga am jàmm yal na yàlla boole jàmmal di ñaanal njiitu réew mi ak ñi koy jàppale yëpp nag di ñaanal njiitu kër gi di RTS ak ñi koy jàppale wante ak techniciens yu góor yi ak yu jigéen yi ak ñi nga xam ne ñooy chef programme yëpp di leen ñaanal jàmm di leen ñaan subhanahu wa may leen jàmm ju bari di ñaan tamit yàlla mi xéewale yor xéewal yi di ko séddale yal ko wasaare ci Sénégal xéewal yëpp nag ak fu mën a bàyyi ko yàlla may ñu ñim ñu bokk ci ñi nga xam ne ñooy wërsëg googu googu la kon bokki jullit yi bokk yàlla ñun ñu ngi di sar yéen ci seen waxtaan yoo xam ne moo di kaddu l'islam imaam bismillah ci li ngeen di alhamdulillahi rabbil alamin wa salaatu wa salaam ala ashraf al mursalin sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam Baay Ousmane ñi ngi wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñi ngi lay nuyu bu baax di la siyaare di la ndokkeel di la ndokkeel bu baax ci mbubu mu rafet bii nga sol gannaaw mbubu bi Baye Ousmane rafet na lool macha allah yàlla nga ko rappelé ak jàmm di nuyu itam nag imaam Harouna Ka mi ñu bokkal émission bi euh, di ko ndokkeel moom itam ci suñu jigéen bi nga xam ne moo ko solol col gu rafet gii di colub imaam nen na ñaa yal na yàlla delloowaat ko Makka mu demaat ak jàmm ñëw ak jàmm te fa jaamu yal na ko yàlla nangu Baye Ousmane di nuyu imaam yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal yëpp nag comme nit ñi da koy defee kàddug lislaam moo dellu siwaat di leen siyaara bu baax euh, di leen tatagal Baye Ousmane ñu jóge nag ci feet comme niñ ko waxee waaye ñu xam ne itam at mu bees ci jullit ñi mi ngi ñëw muy muharram ñu gis ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li nga xam ne mooy aamul hijri mi ngi commencé ci muharram kon nun sunu at mu màggat mi ci weeru sulq xijja bi lay jeexe waaye ñu commencé at mu bees moo tax ñiy wax tam xarit ci nun Baay Usmaan loolu nag dafay tax nit ki war a def bilan bi nga xam ne moom la dund ci fukki fa weer ak ñaar yi nga xam ne moom la passé ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf nuy jàngal doomu aadama nan lay dundee diineem ndax yàlla subhanahu wa kat bim ñu wàccee wàcce wuñu dara lu dul ñu jaamu ko tax mu ne wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yabudun bindu ma nit jinne ak nit lu dul ñu jaamu ma googu nag dafa am fuñ koy teg ndax buñ demee ci hadisul qudsi yàlla dafay wax ne taarifuuni qabla an qabla an taabuduni wa in lam taarifuuni fa kayfa taabudun nee na xam leen ma bala ngeen ma jaamu su ngeen ma xamul man yàlla nan ngeen may jaamoo moo tax yàlla dañ koy xam dañ koy wut a xam wut koo xam ndax jaamu gi nga jaamu tege ci yoon moo tax mu yónni Seydina Muhammad mu nekk sunu maître nekk sunu royukaay laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana iswatun xasana aw uswatun xasana boo ci wax baax na kon loolu dafa am solo ci jaam nga xam ne kat yonente bi mooy sa rolu royukaay yonente bi nag bi mu ñëwee yàlla daf koy yónni ci nun mu andil ñu diine l'islam waaye andil ñu itam nag nan la ñu mën a jëfandikoo diine l'islam ak nan la ñuy jëfandikoo entre bay na naa suñ diggante Baay Usmaan yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon na ci diggante saaba yi ci ku oyof moo tax nit du diis nit da ngay oyof nit du diis nit da ngay oyof yonente bi dafa oyofoon oyof ci lan ci li nga war a oyof waaye ci li nga war a diis muy luy de yàq sa diine kooku da nga war a diis waaye lépp loo xam ne dafay defar sa diine wala muy defar diine keneen doomu aadama ji da cee war a oyof te wàddu dafa bokk ci jikko yi nga xam ne moo nekkoon jikko yent bokkoon ci jikko yent bi sallallahu alayhi wasallam muy tawaadu maanaam wàcce boppam suufeel boppam oyofal boppam loolu moo taxan bi mu àndeek ak saaba yi jëm ci àll bi ñu bi ñu jàpp benn gàtt euh, bi ñu jàppee gàtt bi ndawal gi euh, kii ne man maay rendi kii ne man maay fees yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne man maay taxani li nga xam ne moom lañ koy toggee ñu ne ko yaa laa yaa rasulullahi yow yaay saydul xawm yow la yanni yow la yàlla yàlla yónni ci nun kon kay toogal rek ñu defal la lépp nga lekk mu ne leen déedéet yàlla bindewul ma noonu bindewul àddina noonu gënuma leen ci lenn du ci ndey du ci bàyyi yàllaa ma yónni mais taxut ma gën leen kon bu ngeen liggéeyee da ngeen war damaa war a liggéey comme yéen gis nga jikko yooyu yooyu moo war a roy moo tax dafa dëkk ci hadis mu ne sayyidul xawmu xaadimuhum sangum nit ñi mooy kii liggéey ngir nit ñi xayru naas anfaahum linnaas mu dellu waxaat ne ki gën ci yéen mooy kii gën ci nit ñi te man maa gën ci sama ñooñ comme ni ko beneen xadis ba waxee kon maa gën ci yéen kon gis ngeen jikko yooyu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg doomu aadama yi nekk ci di jariñante amalante njariñ waaye nag kenn ku nekk oyof oyof te goo xam ne foo fekk sa mbokkum jullit def ko ni sa bopp oyof ci katamam am njariñ di ko di ko di ko di ko defal nit waaye bàyyi asmaan li xew léegi musiba la mm-hmm. ŋàññi jullit yàq jullit mm. bu defut dara kon lañu waroon a roy ci yonent bi dañ koo bàyyi teg ci ginnaaw kon maître bi laf ñu jàngaloon hmm. dañ koo bàyyi moo tax nit ñi war nañoo delloo siwaat seen xel xam ne fii jaar-jaar la rek yàlla daf ñu fee defal xéewal daf ñu ay jullit xoola Baye Ousmane yàlla bu ko neexan duñ nekk sax nit dañu nekk xar wala ñu nekk béy wala ñu nekk euh, nag ñaata xar la ñu rey ci tabaski bi tabaskee leen yàlla bu ñu defoon xar mën naa am du ñu fekk fii rey nañu bu yàgg kee nañu bu yàgg waaye kan la yàlla defal mu war a tabaskee xar doomu aadama wala xadd karam naa bani aadama dëgg-dëgg yàlla man maa teral doomu aadama est-ce que doomu aadama xam na ne yàlla da koo teral kon doomu aadama nan la war a mën a comporter woo ci kaw suuf bii nga xam ne yàlla da ko fee wàcce pour mu jaamu ko kon Baye Ousmane nañu telaat sunu bind ci kaw suuf sunu xéewal gi nga xam ne nii moom lañ yàlla defal moo tax moo aaya ba lu muy wax wa in tauddu ni'matallahi laa tuhsuha bu ngeen mënul leen a calculer imaginer xéewal yi leen yàlla defal Baay Usmaan xéewali yàlla yi bokk na ci ngelaw xoola fi ñu toog tey boo xëccee nooyi rek mu ñëw xëy bu ñu téye woon ngelaw li man mii wax bu ma waxee du dem ndax fekk na te oxygène bii dugg si nga xam ne joxuñu ma facture fayu ci dara saal bi li muy tëju tëju tëju oxygène baa ngi ñëw may noyyi bu ma noyee mu neex ma wax génne Baye Ousmane xoola bët ni mu neexee xoola bët bu ko neexoon rek mu muur kenn dootul gis bët ci leer lay dundee leer mooy dundal bët bu jant bi soyee bañ dem vingt trois heures boo duggee sa boo tëjee est-ce que di nga gisati dara parce que leer amu fa bët bi day daal di gëmm dara dootoo ko gis xoola ma xéewal yooyu buñ ne tay làmp bi rek bët yi daal di commencé gis parce que fekk na capturé na li nga xam ne mooy leer gi mu dundal ko téye ko moo tax boo xoolee nga gis bu lépp lëndëmën truus bët day daal di gumba dooto gis dara xoola ma xéewalu yàlla yooyu mu defal doomu aadama laa too suuxa kenn mënu ko lim xoola mu def gémmiñ ngay jël di lekk nga ñam boo ñamee mu saf xorom wala mu saf suukar bu ko neexan doo ko doo ko xam doo ko ñam dara mu jëlal la gé bëñ 32 yëpp wër téye loo teg fii rek mu saqar mi ko mu mokk lu mu dëgër dëgër boo yàggee rek day daal di mokk nem làmmeñ war laa seggal nag yax boo ca war a bokk mbala la lay jam wala la war a dugg ci biir làmmeñ génneel la ko nga génnewaat ko ci biir ñamal la ko ba xam war naa mën a jàll war bu mënta jàll rek da nga buusu bu yàqoo da nga koy buusu ndax am na loo yëg loo xam ne xam nga ne bu duggee rek du baax pour gi sax ko nangu nga daal di koy yàbbi kan moo la defal xéewal yooyu subhaanahu wa taala moo tax booy xool tawxidullahi delloo sa bopp ci yàlla def laa jege. moo tax jaam bu toogee féeteerlu ne du ma jaamu yàlla duma julli mbala duma woor du ma aji lu ma neex ma def lu ma neex ma wax booba dafa xamut xéewal gi ko yàlla defal wallaahi ki la defal xéewal googu nag moo la woo ne la kaay nga jaamu ma mhm. kaay nga xam ma boo ma xamee ba pare nga jaamu mhm. nii nag lañ may jaamoo moo tax lañu doon wax ci émission bi passé muy zikrullahi dafay dellu siwaat bul am jot lii sa jot rek def ko ci muy jaamu yàlla waxuñu ne bul liggéey demal nga liggéey waaye nag boo amee temps bu tuuti boo xam da ngaa war a jaamu yàlla delloo sa bopp yàlla subhaanahu wa taala ndax kat yàlla mi ngi lay xaar ëllëg lim la wàccee woon ci kaw suuf yàlla mi ngi lay andil ñaar ñoo xam ne ñi ngi la topp kenn ku ne mi ngi xool fu ngay dugg ak fu ngay génn li ngay wax ak li ngay def mm-hmm. jaam bi bu xamee loolu bàyyi Baye Ousmane dootul dugg ci waxu mbóorantal di yàq ay doomu aadama ni ñoom mbala ñuy añaanante wala di soxorante bi ci gën a bon mooy jullit ak moroomam li bëgg a xew Sénégal jullit ak moroomam di lor ci ay këral yoo xam ne du dara àddina rek la parce que këralu diine amu fi këralu àddina rek a fi am ak këralu kañaanante mm-hmm. loolu daf ñu war a ko génnee alxasadu laa yasuudu loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ko añaan du góob ko añaan du góob loolu la yonent bi wax kon nañu bokk ndey bokk baay bokk diine ji jaamu yàlla xam ne dañuy dellu mission lañ ñëwoon dañuy dem yàlla ñu yàlla defal dégg ak topp ba yàlla def ñu ëllëg bu ñu dajee ci moom ñu nekk ak xol bu salim xol bu mucc bu leer nañ bu set wicc suñu diggante ak suñu borom te yàlla jégal suñuy bakkaar salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf imam alhaji Mbaye Ndiaye ci waxtaan wi nga xam ne delloon ñëpp ci borom bi subhanahu wa taala waaye ñaax ci li nga xam ne moo di dundinu àddina dëgg te dundinu àddina nekkul rek da kër kër yi rek di xëy di wàcc waaye déedéet danga cay boole yàlla mi la bind nga di ko yëgal ne maa sa gannaaw yoo rek laa bëgg yow laay sopp waaye nag bu leen waxu waxuti tamit imaam waxu leen nga nekk rek eh, téye sa kurus ga ci biir néeg ba rek nekk ca loola rek bëgg caa dëkk déedéet génne li tamit nga dem liggéey famshu fii manaakibihaa wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur gannaaw ba nag ilayhi nushur loolu moo ci boolee li muy wax nag faskuruni askurukum yooyu yëpp ngeen booleeku ci balaa ilayhi nusur fekk am na lu ngeen yóbbu waaye nag ña yi di liggéey ñëpp dem ca tool ya dem ca bitig ba dem ca biiru ba dem ca xàll ba topp ca nag ya yooyu yëpp mooy con suuf mën a ci bi hawa kulumu risqi jërëjëf imam alaji Mba Ndiaye imam alaji Haruna Ka déglu nga waxtaan wi ni mu demee ak ni mu tëddee ñu bàyyi la ak yow lii nga indil mbokk yi jàkkaarloo ñun بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد mbokk yi gannaaw bi ñu delse fii ci jàkkaarloo ak yéen ci télévision Sénégal di leen nuyu di leen ziyaare rawatina euh, bés bu màgg bi nga xamee ne moom lañ dégmal mooy tamxarit di nuyu Alaji Ousmane Sarr euh, maanaam di ko gërëm ci taxawaayam bu rafet ci wàllu islaam wàllu aima wàllu itam dimbale julli ñi di leen gindi e, loo yàlla yàlla yàggal ko ci sunu kanam te yàgg jiite wax dëgg yàlla yàgg na liggéeyal islaam e, loolu moo tax nag ñu ngi koy ñaanal yàlla fan yu gudd di nuyu Alaji Mbay Njaay bi nga xamee ne yàlla jox na ko mu nekk imam nekk chef de quartier nekk responsable yu bari waande terul lu mu xat-xat dana fexe maanaam fekk ci ji Ousmane Sarr ñu bokko ci émission bi di ko defee ni nga xamee ne noonu la waree te nit ñi di ko jëriñoo bu baax a baax Euh, ñaan yàlla yàlla yàlla guddal fanam yàlla def ci njabootam yi barke di gërëm itam soxnam googu gi nga xamee ne moo tax ñu gërëm ko la ko waral um, borom kër boo gërëmee soxnam ñu ngi koy gërëm kon gis nañ ne li mu koy solal ak ni mu koy déggalee ak ni mu taxawee ci kër gi ñu ngi koy gërëm moom bu baax a baax euh, li yonente bi sallallahu alayhi wa ay ma imraatin maate wa zawja araada daxalat al yonent bi sallallahu alayhi ne bépp jigéen bu nekk jullit bés ba mu delloo ci yërmaande boroomam te boro borom këram mu ko gërëm ajjana lay dem direct kon wane la loolu am nañ yaakaar mu ngi ci tànk yooyu yi nga xamee ne moom la yàlla gërëm euh, comme niñ ko waxee maanaam wàllu euh, islam bi euh, bu fekkee maanaam jullit ñëpp dañoo pratiquer ci islam ñun ñëpp ci dundin gu neex bu teey ci andin gu rafet lay nekk comme ni sahaaba yi meloon boo seete yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xamee ne moom la yàlla yónni te gin lépp lu yàlla bindoon te nga seet ne maanaam ba mu nekkee màkka eh, nekk ki nga xamee ne yéeféer yi lu ñu kàccoor kàccoor dañ ko seedeel na ku ku ku jub la kuy wax dëggala la kuy ben ñu ko tudda amin ku ñu woolu du wor du fen du def lu dut noonu lu nga xamee ne mu ngi juddoo ci biir ñi réer ñi nga xamee ne ci tappale la ñuy màggee loolu lañ nekk yàlla tànn ko ci ñooñu te itam yàlla def ñi ko fekke si itam ñëpp la yemale amul kenn ku mu yëkkiti aliyum karamallahu ñoom seen ñaari baay ñoom bokk dek baay ba pare itam Umar ibn al-Khattab ak Usman ibn Affan ñoom ñëpp benn maam la ñu bokk waaye nag waxut maanaam ñooñu nañ ko gën a jege séparé leen seet ñeneen maanaam euh, suufel leen waante ñëpp la yemale bokkoon na ci ñi nga xamee ne ci jamono yooyu arab dañoo fonkutoon nit ku ñu rawate ñu koy wax jaam da nga seen maanaam bilaal ni mu duggee islam bi histoire bi dafa gudd te maanaam bu mu duggee ba fekke ko itam ni mu ko jàppee ak ni mu ko jegelee boppam ak ni mu ko jiitale nga xamee ne loolu la lislaam soxla dañu war a yemal yëpp keroog bi mu ko rombe moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu fekk umiyata ibnu xalaf mu ngi koy mbugal moo nekkoon kilifam ngir gëm ne yàlla gëm ne yonent bi sallallahu alayhi di wax ahad ahad teg xeer bu mag ci kawam di ko sonal yonante bi munoon a ñaan yàlla ñu teggi ko munoon a ñaan yàlla yàlla teye la xewaaji googu nag bugg na maanaam aw yoon bi nga xamee ne ñëpp dañ ci jàngat mun ci xam ne maanaam euh, noonu la jullit war a mel mu dem wax ko Aboubacar Siddiq mu ne ko loo xam ci jaam bi nga xamee ne ñu ngi koy mbugal te dara taxul ñu ngi koy mbugal lu dul gëm yàlla gëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne kooku mooy kan mu ne ko Bilal Umiyat ibn Xalab mu ngi koy mbugal te ngir gëm ne yàlla gëm yonent bi sallallahu alayhi Abubakar ñëw fekk mu ne Umayr ibn Xalaf da ngaa bëgg a rey sa jaam bi xanaa doo ma ko ko dem ko soxla mu ne ko waaw mu ne ko indil téeméeri li bi door ma jaay la ko mu ne ko waaw baax na mu dem indi ko jox ko mu ne ko waaw jëlal nga defe ne def ko jënd di ngir liggéeyal ko Abubakar Siddiq dindi maanaam xeer yu ci kaw denn bi mu ne ko jogal taxaw nga dem jaamu ji yàlla jaamu topp yonent bi sallallahu alayhi wa loolu moo tax yàlla mu ne wama wama li ahadi indahu min nicmati tujza illa ibtigaa wajhi rabbil aala wala sawfa yarda mu ne seete ba seete diggante abu Siddiq Aboubacry Siddiq bokkoon ci buur mag yi bokk ci noobal yi ñëw di maanaam jël alalam pour jot kiñ doon wax jaam te dañoo suufeloon jaam jamono yooyu mu ne ko demal te Aboubacry diggantam ak Bilal Bilal musu ko defal dara moom musul am relation ak moom waaye lan moo tax mu def ko ngir yàlla ak yoon yàlla mën a jublu si dara ilibtigaa wajhi rabbil maanaam ngir jëmm sunu borom subhanahu wa taala bi rek moo tax mu def ko te kooku nag yàlla dina ko fay ba maanaam mu kontaan kon wane ne jullit nii la ñu war a mel ba mu ñëwee ànd ak yonent bi sallallahu ñoom ñoo ànd Faris eh, no kii Salmaanul Faris dafa nekkoon nit ku ñuul waaye nag bu mu ñëwee dañ ko woo jegele ko moom itam jaam la woon biñ ko jaayee Medina Munawara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn waay biñ ko jaayee foofu fekk dañ ko waxoon ne yonent bi lu yàgg-yàgg foofu mooy dëkkuwaayam bi ko gaa yi jàppee nag jaay ko foofu mooy Yesriba yonent moo ko tudde Medina Munawara léegi nag mu ñu ne alhamdulilah comme que fii lañ ma jaayee rek baax na benn bés waa ji jógee maanaam Makka mu ne ñun de dafa am ku feeñ ci ñun di wax ne yàlla moo ko yónni fekk boobu Salmaanu Faari mu ngi ko tàndar mi di witti waa ji mu ne ko ah mu ne mu daal yàlla moo ko yónni mu ngi wax ak yàlla jaar fii génn fii ñun lu ñu jaar fi caaxa jaaya jaamul yi caaxaan la xërëm yi nangam ak nangam rek Salman Faris daanu wàcc daa gaawtu rek wàcc mu daanu mu jogaat ba ñëw taxaw ci kanam waa ji bi waa ji la mu ne ko lan nga wax waa ji bi pes ko mu ne ko ñun kilifa yi di wax yaa ngi wax ak ñun yaa ngi ñun ñu koy wax sunu wax di ci dugg mu delluwaat be ci ngoon si yàlla def keroog la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw foofu te moom bi mu ñëwee fekk yonent bi sallallahu alayhi te ñetti mandarga lañ ko joxoon mu ne ko du lekk sarax day lekk adiye te du maanaam ci joggaram fi am na tampon xaa xaatimu nubuwa ñetti yooyu lañ ko joxoon moom la bi loo ko joxoon léegi nag mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi sallam mu indi tàndarma mu ne ko lii de maa la ko sarax yonent bi sallallahu alayhi wa jël ko jox ko sahaaba yi mu àndoon wante gis na lekkut mu xam ne ne benn mandarga bi ñëw na mu demaat indiwaat beneen tàndarma ma ne ko lii de maa la ko jox adee yonent bi jël ci loolu def ci gémmiñam mu xam ne nag gém lii gis na mandarga bi léegi nag mu demee gennaaw yonent bi bi def ni mbubba bi mu gis xaati mu ndëbba mu foon ko di jooy mu ne ko waan lu métti rek man jaam laa maa moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko delluwaatal ci kooko ki nga xamee ne nga ne ko na la gorel bu mu ñëwee mu ne ko yonent bi daal mu ne nga gorel ma pour mu topp yàlla topp yonent salaam mu ne ko demal nga indilal ma nga sampal ma ah, ñetti téeméeri ma ba mu meññe ba pare ma doog la wax lim la sas eh, oh, léegi salmaanu faari delluwaa dina mu ne ko lu mu wax mu ne ko lu mu wax yombut tàndarma mën na ma ko indilal ñetti téeméeri tàndarma ñu sampa ko mu ba mu meññe mu doog wax lu may sas kon ba boobaa loolu dafay nekk ñeenti at wala juróom at mu doog a meññe yonente mu mune ko loolu dara mu ne waa Ansaar may leen ma tàndarma kenn ma jimbat gaa yi ma may ko pakk fi muy jimbate indi ñetti téeméeri tàndarma yonent bi moo ko jimbat ci loxam ba benn tàndarma Umar ibn al-Khattab moo ko jimbat dem ba nawet bi sori yonent bi ñëw tàndarma yépp mu ngi jóg meññ léegi nag mu gis tàndarma boobu mu ngi sis mu ne waaw lii man lan moo def li Umar ibn al-Khattab mu ne man de xam woon kéemtaan ngay def wante tàndarma bi maa ko jimbatoon yonent bi yëkkitaat sampaat ko mu taxaw maanaam yépp yépp moto am tàndarma mu ne ko demal ko waaji bi mu ne ko ah yonent bi mu ne nga ñëw nga seet tool bi ñor na mu ne ko xanaa dangaa dof tàndarma bi nga xamee ne ren lañ ko jimbat mu ne ko yow sa yoon nekku ñëwal rek mu ñëw fekk tàndarma yépp mu ngi meññe xam nga ne ko kooku bu fekkoon am na saas mu gëm yàlla xam ne lii du caaxaan mu ne ko waxal li nga ko sas mu ne ko léegi nag lim lay sas mooy na ngi indi lu tolloo téeméeri eh, diinaar ma bay la léegi yonent bi sallallahu alayhi wasallam yëkkitoo foofu lu tolloo nenu ganaar ci ci ci wurus mën na ko yóbbul kooku dem di peese di peese ba din la doon def mu delloo ko li ci des nii la Salmaan al duggee islam yonent bi sallallahu alayhi def ko taf ko ci boppam mu nekk maanaam euh, liggéeykat yonent bi sallallahu ànd ak yonent bi sallallahu sallam kon nii la ñëpp war a mel ba fekkee nit ñi ñëw nañ da leen war a yemale nga xam ne bul seetne kii suma mbokk la bul seetne kii suma xarit la xamal ne yéen a bokk di innamal mu'minuuna ixwa fa aslu bayna axawaykum kom que yàlla mooy wax nag diine gi maanaam ñun jullit ñi ay mbokk lañu te dañu war rafetal mbokk bi bokkonu ci maanaam ku ñëw ci yow nga yemale leen ku ñëw ci yow nga jàpp mooy yow kon loolu moo tax ngeen kunu ibadallahi ixwaana yon nan di mën a ngeen nekk maanaam jaamu yàlla te ñu bokk kon nag nii lañ war a nekkee kon nag bo boobaa buñ ko defee du ñu añaanante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yusiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa wa man yuqasha nafsihi fa ulaaika muflixuun yàlla mu ne gaa yi nga xamee ne mooy sahaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ñu meloon dañoo soppante yërëmante ba kenn ku ne loo ko jox mu ne yelloo wa diw moo ko yelloo alaji mbay moo ko yelloo wala alaji sar yóbbu ko foofu nii lañ ko defee ba affaire bi mujj ñu indiwaat ko ci ki nga xamee ne moom lañ ko doon jox kii nga xamee ne baayam jam nañ ko doom bi dem indi ndox fekk ko mu ngi tidd ci xare bi mu ne ko jëlal naan mu ne ko joxal ku ne koy sama kooku ne mu bëgg koo jox kooku mën a joxal ku nekk ba dem maanaam mujjal te mu ñëwaat ñoom ñu fekk nga xamee ne nii la jullit war melante kon nag jullit yu añaanante jullit yu wàññilante jullit yi nga xamee ne waxante lu ñaaw yàlla wa loolu moo tax nag yàlla def ko tere kon nañu góorgóorlu nekk benn ñu ngi gërëm nag maanaam mbokk yi nga xamee ne ñoo jàkkaarloo ak ñun yëpp suñu sañoo ñu tudd seen tur yëpp rawatin nag sama tailleur bi mooy Modou Ndoye yére yi may ñëw yi may sol yëpp moo koy ñëw ànd ak maanaam kader ñaa ak sama jigéen bi mbay tudd na ko léegi mooy euh, nenne ñaa moom indaalal démb yëre jóge mag yal na yàlla nangu ajam yàlla fay leen bi jaay sallallahu alayhi wa sallam barakallahu fi wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ne yàlla nangu la jërëjëf euh, imam alaji Haaruna Kàcc waxtaan wi am na solo euh, rawatina li nga xam ne moom la ñu jàngal ci histoire ci diggante yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak ñu ñuul ñi nga xam ne ñoo bëggoon diine waaye gis ngeen bilaal ba tey bilaal la ñaa yonent bi ñaanoon di nga mu ngi tasaaroo ci àddina ñëpp ku nekk ñu tuddee leen ko kuy jàng ci jàkk ji wala kuy nodd ci jàkk ji wala kuy jottali ñu ne ana bilaal ba kon gis nga ne loolu am na solo rawatina nag ki nga xam ne moom moo perse bi bàyyeekoon ca fi nga xam ne moo di faris waaye ak li ci yonent bi def xam ngeen ne eh, garabi tàndarma yi ñu samp ci ñaari fan mu meññ kooku xam ngeen ne loolu yàlla kéemaanu yàlla la waaye gannaaw waa ji dafa soxoroon ci moom ngir dama bëgg a mu ne ko foog ngu samp téeméeri tàndarma te tàndarma lu mu néew maam juróomee door a meññe meññe bu baax xam nga dafa sox li lam ko bëggoon wax daal mooy ne doo dugg ci diine yow yow bokkoo ci waaye ba wax ko mu ne ko dama nguti tàndarma yi waaye su nga nii yàlla lay def jaarale ko ci yonent bi waa ji matul weer waa ji dal di nekk ab jullit kon jullit yëpp nañu nekk benn loolu wax léegi mu ne ko koonu ibadallahi ixwanan kon mbokk yëpp nañu nekk daal benn ah, di ñaanal ñëpp nag rawatina ñi nga xam ne ñoo solal sama imaam yi ah, ci mbubu yu jekk yi nga xam ne moom la ñuy def ci ci mbubu rëy mu rafet moom mubum ilimaan ci émission bi ñu génn kii mbubbam imam pour nga xam ne da ngay xutba mu rafet nga sawar ci yoonu yàlla kii ku ko indil bàyyi ko ci di sooy diya yooyu ñu ni ñaar ak ñaar ñi nga xam ne ñoo xam mébét mébét mébét mu mel ni ñooñu ngir defar leen kontaan ci ñoom ñoom ñëpp yàlla euh, jàppale leen bu baax a baax a baax kaddu islam di leen ñaanal rawatina njabootu Alaaji Lamin Saaxu ñu nekk ca Daara Jolof waaye rawatina ki nga xam ne mooy ñaay njabootu alaaji Cheikh Diop ca Padoua njabootu alaaji Ali njabootu alaaji Dame Diop uh, ca uh, fi nga xam ne moo di Caaroy kaw waaye alaaji Yatma Lo Tatami alaaji njabootu alaaji Imam Morsi ci Ndakaaru Ayda uh, Aja Ayda Faye Aja Ayda Faye waaye ki nga xam ne mooy Aja Caroline Sarr Caaroy Aris Abdoul Ba ak Sarlou Mendy ñu nekk ci lopitaalu Dakar euh, boobu Thiaroye euh, Thiaroye Gare wante nag ak ñi nga xam ne mooy alhaaj alhaaja euh, Oulimata Mbaye mu nekk ca mairie bon Dakar Fatim Ndiaye ca Bordeaux waaye Adja Mam Awa Mbeng ak Soxna Khady Fall soppana bi Adja Soxna Abi Fall bëgg Bamba waaye ak Mariam Ndiaye ab sutu jë mu nekk ci bukki yow kon kaddu lislaam gi nga xam ne mu ngi leen di ñaanal yéen ñëpp waaye fàttiwul nag Karfan Kande mu nekk ca Paris ak Mariama Mbodj di leen ñaanal jàmm ci seen waxtaan wi xam ne moo di kaddu lislaam waaye ak euh, Lamine Niang ak njabootam waaye ki nga xam ne moo di njabootu Ibrahima Sakho njabootu Papa Sarr ci Wokam waaye njabootu ñoom ñëpp di leen ñaanal jàmm ak Mamadou Thiam Wallo ca fële ca Arabie Saoudia ak euh, ki nga xam ne moo di Amadou Faye di leen ñaanal jàmm ak Alaaji Ibra Pouy kon kaddu lam di leen ñaanal jàmm bayul ñëpp ñi nga xam ne ñoo di ay soppeem yëpp nag ci Sénégal yëpp nag di leen ñaanal jàmm bu baax a baax kaddu kon mi ngi yem fii ak yéen ba beneen alxames ci waxtu mu des ak yéen ci waxtaan yi. wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mm-hmm.